saluer les membres de cette auguste assemblée, à commencer par Monsieur l'évêque Mathieu Madega euh, de Mbouila, si je ne me trompe, qui ce matin a fait preuve d'une effervescence spirituelle tel qu'aujourd'hui, il nous est même difficile de pouvoir prendre la parole et marcher sur ces sillons. Mais nous allons essayer de magnifier la relation qui existe entre les deux communautés. Donc je dois vous remercier pour cet accueil exceptionnel. J'allais dire exceptionnellement exceptionnel. Parce que vous l'avez réussi, vous nous avez invité à ouvrir nos cœurs. Nous l'avons ouvert, mais nous avons trouvé que aussi dans nos cœurs, vous y êtes déjà présents. Donc, le mot est un mot de remerciement à votre endroit. Je confonds dans ces remerciements bien entendu au nom de monsieur le maire de Mayomba aussi qui a même fait preuve d'une grande générosité en mettant à disposition un bœuf pour véritablement euh, contribuer à la préparation des des mets. Il me fait dire Ces remerciements à l'adjoint au maire, dont j'ignore peut-être le nom, mais qui a vachement contribué à la réussite de cet événement. De même que euh, le sénateur, je de la, de la ville de, de Mayomba, excusez-moi des petits détails. Alors, cette édition est la quatrième et la cinquième. Et nous l'avons organisé, organisé aussi sous, sous les auspices, sous l'autorité, la direction du Khalif général des Mourides, Serigne Muntaka Mbake. Ici représenté par un de ses fils, Serigne Bassirou Mbake. Donc les remerciements vont à l'endroit de la délégation qui vient de Touba. J'ai cité Serigne Bassirou, Serigne Bassirou délégation bi yëpp ñu ngi lay nuyu le comité bu salue n'est-ce pas transmet ses félicitations Serigne Bassirou qui est accompagné de son frère Serigne Mahmadan Mbacké qui a à côté de lui d'autres Mbacké Mbacké ce sont donc des petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Ahma Mbacké Serigne Cheikhouna euh, Serigne Bousso euh, Serigne Mbacké Serigne Moustapha Mbacké ils sont nombreux Serigne Moustapha Bousso Euh, soxna maam Issa qui est dans la délégation soxna Issa maam Issa Ahlou Café soxna Astou Gawane Mbacké euh, Sëñ Fallou je crois que je l'ai cité aussi en tout cas euh, même les autres membres de la délégation sont confondus dans les remerciements Serigne euh, j'ai oublié de mentionner Serigne Cheikh Khadim Fall et Serigne Djili Fall qui représente la famille de Cheikh Ibrahim Fall. Cheikh Ibrahim Fall était le disciple modèle de Cheikh Ahmadou Bamba qui a montré la voie. Dans la Mouridia, s'il y a quelqu'un apte à montrer la voie à tout le monde, c'est bien Cheikh Ibrahim fal Donc il est ici représenté par Serigne Khadim Fall et Serigne Djili Fall. Alors, euh, on a aussi la délégation de l'ambassade. On aurait dû commencer par ça même, de l'ambassade du Sénégal, C'est une affaire aussi d'État. C'est une affaire de population, mais qui traite aussi à un certain niveau, donc au sommet des, des deux États. C'est important de relever la présence, euh, dans la, la, présence de la forte délégation donc, de l'ambassade. L'ambassade hein, qui a montré euh, une présence soutenue tout au long de, de, de, des préparatifs et tout au long de notre séjour ici. Je crois que l'ambassade était les membres, la, la, la, la, délégation était présente lors de la cérémonie d'ouverture. Donc, vous aussi recevoir les remerciements du, du comité. Je n'oublierai pas Madame Mousli, la brillante Mousli, qui, dont l'ombre plane partout hein, depuis la première euh, édition. Bator est en train de, de, de sourire parce qu'elle connaît elle connaît votre dévouement. Donc le comité vous, vous remercie pour ça aussi. Donc je vais me passer de Badocène, de Khassim, Sar, de Kalam, Kalam, il est Kalam nest pas euh, Pato, la coordonnatrice euh, nationale au Sénégal, nest pas Et la délégation de Port-Gentil, de Lambérené, de Mouila, de Chibanga, et les autres personnes qui viennent d'un peu partout de la France, la Turquie et des autres États Abibou Mbaye qui est là aussi euh, qui est un, ancien ministre conseiller sous le régime de de Abdoulaye Wade Mamor Mbaye n'est-ce pas qui brille n'est-ce pas par euh, ses déploiements spirituels dans le comité et partout donc Mamor euh, bravo pour pour euh, votre présence mais pour surtout euh, votre dynamique votre dynamisme n'est-ce pas La police euh, de, de, de, de l'État du Gabon, je ne l'oublierai pas, la police qui nous a accompagnés jusqu'ici, n'est-ce pas Si nous avons pu atteindre notre cible en appuyant sur la gâchette, c'est parce que la police nous a aiguillonnés quelque part. Alors, merci à la police, merci aussi à la DGDI, n'est-ce pas, qui a été là aussi. Voilà. Je crois que je n'ai pas oublié Mourtala Gaye, notre caméraman, Khadim Sek, etc. Je ne peux pas peut-être, n'est-ce pas, tout Sek, les autres le, membres de la délégation. Alors, ce qui est important, c'est le message que nous devons tirer de notre interaction, de notre rencontre, j'allais dire. Et M. l'évêque a déjà annoncé la couleur tout à l'heure dans cette interview qu'on a eue avec vous, en montrant que Cheikh Ahmadou Bamba était une personne profondément ancrée en Dieu. Je reprends vos propres termes. Tout le monde des deux côtés va devoir continuer à apprendre le Cheikh Ahmadou Bamba. La partie sénégalaise a osé braver toute cette distance pour apprendre. Mais je suis sûr aussi et certain que vous êtes en train de procéder de la sorte parce que Cheikh Ahmadou Bamba reste un mystère pour toute l'humanité. Il est universel. Vous me permettrez de rappeler que c'est suite à la décision du Conseil privé du 5 septembre le conseil privé, la plus haute instance de l'Afrique de l'Ouest qui délibérait. Euh, C'est suite à la décision du conseil privé qu'il a été interné au Gabon. Et le rapport du conseil privé du 5 septembre 1895 qui dit ceci. Euh, le conseil privé, après avoir entendu la lecture des rapports de M. Merlin et Leclerc et fait comparaître Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. La question, c'est que nous sommes là, nous, à revivifier ces enseignements. Donc, cela veut dire que ces enseignements n'ont jamais été oubliés et qu'ils ne seront jamais oublié. C'est une victoire pour toute l'Afrique noire. Quand aujourd'hui, les, les, deux communautés se retrouvent pour célébrer l'universalité de ce message. Donc à partir de 1895, il a été exilé au Gabon, ici à Mayomba. Mayomba se trouve au confluent d'un fleuve du fleuve Bagnon et de l'océan Atlantique. Cheikh Ahmadou Bamba aujourd'hui est au confluent de la communauté chrétienne et de la communauté musulmane. Je pense que c'est un détail qui est à relever. Donc Mayomba est une terre de mystère. J'ai l'habitude de dire que quand on traverse les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, on y décèle un optimisme qu'on ne saurait comprendre comparé aux difficiles conditions de vie dans lesquelles il a évolué. Ce qui me fait dire qu'à côté de lui, il y avait donc un univers composé d'êtres invisibles, donc c'est ce que j'appelle le monde inintelligible. Ici, il y a le monde intelligible, mais il y a un monde aussi inintelligible que nous ne parvenons pas à déceler. Donc Mayomba est une surcharge de souvenirs, mais Mayomba aussi est une terre de grâce. Il a dit Ikhrajuhu ilal biladi na'iya hmm. wa nala fiha fawqa Ils m'ont exilé en des endroits lointains où j'ai obtenu des grâces au-dessus de la sonde de toute exploration. Voilà un peu le message qu'il a donné, qu'il était venu prendre des grâces à Mayomba pour desservir le monde entier. Donc tout le monde doit pouvoir profiter de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba ne nous appartient plus. Cheikh Ahmadou Bamba nous appartenait quand il n'avait pas franchi le seuil de Gabon. Après son séjour sur Mayomba, c'est un autre Cheikh Ahmadou Bamba universel, avec un message universel, partageable, n'est-ce pas, qui implique toute l'humanité. Dans une société conflictuelle aujourd'hui, où la violence est devenue ce qu'elle est, où euh, la prise de parole est banalisé, profané. On a besoin d'une figure comme Cheikh Ahmadou Bamba qui a eu l'audace de chanter notre Seigneur Mariama, la bien Marie, la Vierge Marie, avec Foussibizal Fil Hassanat. C'est le poème qu'il salmodiait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de chez Ahmadou Bamba Pascal, que vous connaissez bien, ce philosophe disait, il faut douter où il faut, assurer où il faut, se soumettre où il faut. Et il dit, qui ne fait pas ainsi n'entend pas la force de la raison. Et ce doute ne nous traverse plus, nous. nous avons assuré et nous nous sommes soumis. Emmanuel Kant, dans le nominal kantien, disait J'ai dû abolir pour établir la foi. La foi est l'ultime recours de tous les sceptiques. Heureusement que le scepticisme avec Cheikh Ahmed Bamba ne s'est pas installé dans nos esprits. Comme message, je pense qu'on doit pouvoir retenir ce que voulait le conseil privé et ce qui a fini par être par la volonté de Dieu. Comme message, nous allons retenir, comme vous l'avez dit, évêque, monseigneur, que la bonté est meilleure que la méchanceté. Et il a pardonné, hmm. malgré ses souffrances, malgré ses vicissitudes, il a pardonné. On va retenir donc comme message la capacité de pardonner, la tolérance. Mais retenez avec moi aussi que j'ai dit que Mayomba était une terre de mystère. Parce que ici à Mayomba, il a écrit plus qu'il n'a écrit ailleurs. Il y a passé cinq ans. Et Cheikh Ahmadou Bamba, aujourd'hui, et sans aucune forme de doute, est présenté comme l'écrivain le plus prolifique de toute l'humanité et de tous les temps. Personne, jusqu'ici, ne nous a défiés sur ce terrain. Et nous n'avons pas encore rencontré une personne qui a pu produire un dixième de sa capacité de production. Alors, ça s'est produit ici à Mayomba. C'est chez vous, c'est chez nous, c'est en Afrique. Qu'est-ce que nous allons faire de ça On attend que l'écrivain le plus prolifique soit américain pour en parler, soit français pour en parler. L'appropriation doit être une appropriation africaine d'abord, et c'est ce message-là que nous devons vendre au monde entier. Euh, l'écrivain le plus prolifique. Ce cadre est à magnifier. Nous avons jeté les bases. Et l'évêque a le mérite véritablement d'y avoir travaillé avec succès. Et toute la communauté mouride doit remercier aussi le comité d'organisation. Maintenant, nous avons des défis, des et des perspectives. Le défi majeur, c'est de faire en sorte que ce caravane-là garde son lustre d'aujourd'hui, que la caravane soit maintenue et que ses faveurs défient l'espace et le temps. Il était seul ici il y a 129 ans de cela. Sur le même lieu, sur le même site, les chassaïdes, les chants religieux, les poèmes rédigé en faveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa de Dieu, et dont certains ont été dédiés à Aïssa ibn Mariam, Jésus, l'ont été ici. Et ce sont ces mêmes chassaïdes que les disciples ont salmodié toute la nuit durant, toute la journée d'aujourd'hui, et ils le feront toute la nuit d'aujourd'hui. Remarquez quand même, Dieu l'a récompensé. Sur ce même site, il y a 129 ans, il était seul. Des questions ont surgi sur qui cuisinait pour lui, qui faisait le linge pour lui, qui l'aidait à faire déplacer ses bagages de Libreville à Mayomba, puis Lambérené, parfois Ndiolé, le tribunal de Ndiolé. où Samori a été tué et qu'il est dit que c'est à partir d'ici qu'il a fait la prière mortuaire de Samori. Donc autant de questions que nous nous sommes posées, des réponses se déclinent. On entend souvent dire Yaziratu Mayomba, l'île de Mayomba dans ses poèmes. Et quand on parle de l'île de Mayomba, ou bien quand il parle de la mer de, la mer de Mayomba, on pense à l'océan Atlantique qui se situe de l'autre côté de Mayomba. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que Mayomba était au confluent du fleuve et de l'océan Atlantique. C'est une île d'une fécondité rare. Je vais m'en arrêter peut-être là. On ne m'avait pas demandé de faire un discours. on m'avait demandé de placer deux mots à l'endroit de l'assistance. Pour non seulement vous remercier, mais pour partager avec vous ce que nous pensons de ce qui est en train de se dérouler et ce que nous pensons du personnage que nous présentons chez Ahmad Bamba et qui ne nous appartient plus, qui appartient à l'humanité et en premier les citoyens de Mayomba. Je devais même commencer par ça pour Euh, dire l'importance de l'événement, que nous avons le soutien indéfectible du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et les autorités, son premier ministre, euh, Ousmane Sonko, que vous connaissez bien, et les autres membres du gouvernement, ils ont appuyé la caravane. Et sur place aussi, on a trouvé l'appui très soutenu de l'État du du Gabon qui a tout officialisé. Et le président du comité me demande de réitérer quand même mes félicitations et mes remerciements à l'endroit des deux États partis. Et donc, euh, je pense que euh, c'est ce qu'on m'avait demandé de dire. Par moment, j'ai fait des incursions dans le domaine qui appartient peut-être, euh, n'est-ce pas, au, euh, à Serigne Bassirou et à l'évêque. Mais je pense que vous me pardonnerez euh, attention. xalifa général de Mouride ñu teewal ko fi ànd ak ñi ñu àndal muy sëriñ Mouhamadan mu sëriñ Moustapha Bachir ñu ànd ak sëriñ Ahmadou Mbacké mu sëriñ Mourtada Daaru Muxti ànd ak mbooloo mi daal buñ ko limee day kii waaye ñoom ñëpp ñu ànd ngir teewal fi sëriñ bi ci liggéey bi ñuy nuyu nag kilifa yi ñu fekk muy kilifa gi di monsieur évêque évêque bi nga xam ne moo kilifa gi ñu fi fekk ci jàngu bi ñu koy nuyu di nuyu tam monsieur le maire bi nga xam ne moom it nuyoo woon nañ fi sànq di nuyu mbooleem daal ñi nga xam ne ñoo ñu dalal fii ci dëkk bi leen jot li nuyoo sëriñ bi di am mbégte bu baax a baax wax ji nga xam ne kilifa gi di Moussa Évêque wax na ko jëme ko ci sëriñ bi jëme ko ci sëriñ Touba nga xam ne moo nekkoon fii ci Mayomba wax ji rafet na lool suñu xel dal na ci bu baax suñ xol sedd na ci itam li nga xam ne wax na ko ci sëriñ bi li nga xam ne noonu la doon waxee xasida yi sëriñ bi itam dañuy fàttali rekk ne alxuraan di wax ne wa isa samiu ma unsila ila rasulit tara ahyunuhum tafiidu tufiidu min a damxi mimma xarafoo min al xaqi alxuraan wax ne yenn kilifa yi yi bu ñu déggee li ñu wàcc ci yonante bi sallallahu alayhi wa loolu mooy alxuraan maanaam seeni bët day taa ak ay ronkoñ kon wax jëm doon wax ci fosti bi sarfil xasanaat kon loolu lañuy nuru loolu lañuy fàttale xustu bi sarfin xasanaan ni ko sëriñ boo waxee sayidatan lil muxsinaat maryamu foxtil mooxinaat inda alladi lam yudrak wax ne sayidatna maryama mi nga xam ne ndam bi yiw yi da ci duy ba feesal mi nga xam ne mooy sangu mboolem jigéen ñi wax ne Mariama kawe na mboolem jigéen ñi hindal la si lam ju dëkk ca sun borom ci alxuraan moo wax ne yaa Mariam inna laaha stafaaki wa taharaki wa stafaaki ala nisaa'il alamin alxuraan dafa wax ne yow Mariama day tànn nañ la laabal nañ la ci ay bàkkaar tànn nañ la itam ci mbooleem jigéen ñi jigéen ñi kon kon kon li sëriñ bi wax alxuraan la aaye boobu aaye boobu mooy dëppee mooy dëppo ak fustu bi sarfil xasanaat sayidatan lil muxsinaat mariama fuxtil mooxinaat ma inna laaha stafaaki wa taharaki wastafaaki ala nisaa'il alamin kon moo tax ma ne biñ déggee évêque di ko wax dafa mel ne dañ koo yëg ci dafa mel ne lu mu yëg ci xolom lu wér la moo tax may fàttaliku aaye boobu bi ma doon wax léegi kon ñu ngi koy rafetlu discours am bi di wax ne dégg nañ ko bu baax bu ko sëriñ bi déggoon dana ci am mbégte bu baax ni ko ñii fi toog ñëpp yége kon ñu ngi rafetlu kàddu yi ñu ngi rafetlu itam dalal gi ñu dalal ci dëkk bi biñ ñëwee démb de ànd nañu coono waaye li ma doon wax sànq rek ñaar moo tax coono yooyu yëguñu ko muy nekk gi fi sëriñ bi nekkoon doon fi jaamu yàlla di fi liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wa liggéey bu mucc xayib loolu tax na ba biñ agsee li yoon wi metti metti metti ñu xam ne fii la ko sëriñ bi fii la nekkoon li fi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ak jaamu yàlla am guréy googe moo tax biñ ñëwee itam yëgatuñ coono yooyu suñ xol dafa sedd guy ñu boole ci ñoom ñii tam di waa dëkk bi dalal ñu dalin wu rafet loolu tax na biñ agsee yëgatuñ coono bi kon ñu ngi leen sant bu baax ñu ngi sant itam ñi nga xam ne ñoo ko taxawal bis bi duñ ci fàtte sëriñ Fàllu Buso mi nga xam ne xëy na liggéeyab sëriñ bi ci moom la ko jaarale ñu koy fàttaliku bu baax di ko ñaanal di nuyu njabootam gi fi teew sëñ Seexuna Buso ak mbooleem njaboot gi ñëpp ak soxna maam Asta ak mbooleem njaboot gépp ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal muy sëñ Cheikh Mbeng ñoom ñii ñëpp comme duñ mën a lim ku lim juum waaye buñ tuddee sëñ Cheikh Mbeng ñoom mooy mooy mbooleem mën nañoo wax ne sax mbooleem taalibe yi nekk Gabon rek nga xam ne xam ne ne bis bi seen bis la kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ci turu sëriñ bi di rafetlu liggéey bi bu baax a baax a baax Ah, lii nag ah, Pastef la bu rëy ndax barab bi sori na la tax ñu xam ko itam yitte ju mat sëkk la ndax ma naa raaf kon yitte ju mat sëkk la kon sëñ baa ngi leen jee sant bu baax a baax a baax muy liggéeyam sëñ Tuubaa bu rëy nag ndax sëñ Tuubaa fii ku ne xam na ne liggéeyal na fi yàlla liggéey bu bu ko kenn mus sa liggéeyal ndax metti woon na lool lool lool waaye nag la muy metti metti metti lim fi jële lim fi jële jar na ko niñ ko waxe woon rek nga xam ne daa mas nett yoonu Gabon wii coono bi mu ci doon daj di nettali nag am lu mu nettali ba genn góor gu toogoon ci moom jékki-jékki daal di bindi maanaam daal di rëccal dënnam daal ne ah waaye sëñ bi lii lii metti na lool de sëñ bi ne ko metti na lool de waaye boo amutoon de dara du ko jar ndax li nga xam ne moom la fi jële ci ay xeewal mën nañ ci tudd dara itam ci li nga xam ne sëriñ bi tudd na ko wax ne wa min asraaril xaybati ana laaha man na alaya bisabhin karamaat muhjisaatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya xalabali ahdaa'i xabla zuhuri wa habali ilman lam yakun min at-ta'allum wa baaha rasulallahi wa baaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu anbiya bi xurbati xasra sinin wa xidmati lahu fiha xidmatan xidmatul xaalisa waxabani llahu taala ila kulli saidin wa ayasa iblisa wa kulla lahin maha hoo minni wa hababani taala ila almalaikati alkiram wa hababani ila muminil jinni sëriñ bi wax ne bokk na ci tukkib géej gii mu ñëwoon fii ci Gabon rawat na fii ci Mayomba mi nga xam ne fi la ëppoon lu mu nekk wax ne suñ borom defal na ko ci juróom-ñaari karaama yoo xam ne maanaam muhjis muhjis sab yonante bi la sallallahu alayhi wa ci muhjis say yonante bi sallallahu alayhi wa ci la bokk wax ne yàlla notal na ko ay noonam njëkk muy feeñ wax ne itam suñ boroom may na ko ci xam-xam boo xam ne jógewul ci xamlu kon xam ne sëñ bi moom bu doon jàng rek rek am xam-xam moo fi ëpp xam-xam waaye nag yàlla dolli na ko ci xam-xam boo xam ne ci jëlewu ko ci xam xamlu wax na itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koy puukare woo ci bépp yonente maanaam ci tumrank gi nga xam ne noonu la tumranke woon fii ngir jaamu yàlla ngir liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dana ko puukarewoo ci kaw an ci ci yonante yëpp xam leen ne am na ku ku kenn amut loolu bokk na ci li ko suñ borom defal wax na itam suñ boroom itam bëgg bëggloo na ko bépp aji texe képp koo xam ne kuy texe la rek day bëgg sëñ Tuubaa bu ko xamee loolu sëñ bee ko bind loolu ba tey ci tukkib géej bi la ko amee wax na itam naagaloo na seytaane ci tukkeem bii muy iblis ak njabootam maanaam ñoom xam ñoom naagu nañ ci sëñ Tuubaa xam ne mënaluñ ko dara ba faaw loolu tam ci tukki bi la ko amee wax na itam may na ko soppaloo na malayka yi nga xam ne mooy malayka yu baax yi ñoom it sopp nañ du Touba ci tukki bii la ko amee wax na itam mboolem junne yi nga xam ne ay jullit la ñoom ñëpp sopp nañ Serigne Touba ci tukki bi la ko amee kon ñu xam ne kon maa yomba gi daal nañ jàpp ne metti woon na lool waaye ab abutukaay la woon ci sëriñ bi mi ngi mel ne ku tukki rek di wuti dem cam réew boo amee nga ñibbi sam réew kon sëriñ bi dafay mel ne looloo ko fi indi woon waaye lim fi jëlee ku ne xaj na ci kon daal ñu ngi jéggul bu baax di sant bu baax mboolem ñu fi teew ñëpp ku ne xam na ne fii Pastef rek moo fi indi nit ndax barab bi sori na waaye nag barabu barkeelu la barabu siyaar la barabu jaamu yàlla la kon ñu ngi leen di sant bu baax ci turu sëriñ bi am nañ mbégte bu baax nag bi ñëwee tey jiitam daje ak ah si ñu doon toppatoo ñu koy toppatool sëriñ bi mu war a nekk kër sëñ Touba ci kër sëñ Touba la muy doon ku ne xam na ko kër sëñ Touba moom jaamu yàlla rek moo ko tax a jóg jàkka ak daara moo tax a jóg kër sëñ Touba wajxal buyooti kullaha masaajida la wax kon kon kër sëñ Touba moom loolu rekk la kon nag am nañu mbégte bu baax bi nga xam ne daja nañoo tey ñu ànd ak ñoom maire bi ak kilifa yi ñu dem bañ bañ won leen ko ne kon mën ngeen koo def fii kon xanaa rek ah ñu gën a soñu mbokk taalibe yi rek ñu gën cee taxaw ba loola taxaw ba ku ne la ca yéeneem rek mu am ko ndax ku ne bu li yéene li ku ne ku ne yéene na barab bii ni fi sëriñ bi nekk woon mu am fi màndarga mu ko muñ koy xoole bu baax a baax kon ginnaaw am na nag kon nañ gën a jàpp góor bu baax a baax ci taxawal ko ñu ngi ñaan suñ boroom nag may ñu lii ñu yàgg koo taxawal waa ñi koy taxawal suñ borom kàttanal leen ci ba la cay seen yéene àgg ñu ngi koy ñaan baax ci barkeb Sëñ Tuubaa kon nag jërë ngeen jëf donc euh, d'abord une traduction de le résumé en français de tout ce que le représentant nous a dit. kon nañ déglu sëñ Baye Dame Mbaye mu tekki ko ci français baax na jërë ngeen jëf. bismillahi rrahmani rrahim. la tajidanna ashadda annaasi adaawatan lilladina aamanu alyahud walladina wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina le bon Dieu nous dit dans le Coran et vous trouverez que les plus proches en affection de ceux qui croient sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est parce que parmi eux, il y a des prêtres et des moines. et parce qu'ils ne sont pas arrogants lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé aux messagers. Vous verrez leurs yeux débordés de larmes à cause de ce qu'ils ont reconnu de la vérité. Ils diront, Notre Seigneur, nous croyons, alors inscris-nous avec les témoins. Et pourquoi pas, nous ne croyons pas en Dieu et en la vérité qui nous est parvenue et que nous espérons que notre Seigneur nous fera entrer avec les justes. Merci, monsieur l'évêque. Ceci est mon petit bonjour à votre endroit. Messieurs, nos chers hôtes, sachez que nous sommes très contents de cette nouvelle cohabitation, de ce tout nouveau voisinage qui le symbole de la communion et de la fraternité. Monsieur l'évêque, Monsieur les dignitaires représentant de l'Église, Monsieur le maire de Mayomba, Monsieur le sénateur, Monsieur les dignitaires de cette ville, de cette commune, au nom de Serigne Bassirou Mbaké, fils de Serigne Mountakha Mbaké, l'actuel khalife général des Mourides, l'actuel leader de tous les Mourides. Au nom de sa délégation qui l'accompagne, on peut citer Serigne Cheikh Khadim Fall, ainsi que tous les chefs religieux qui ont accompagné Serigne Bassirou. Au nom du représentant de l'ambassade du Sénégal au Gabon, au nom du comité de pilotage de la caravane de Mayomba, au nom des Sénégalais et de nos braves dames sénégalaises, vivant ici au Gabon et venus partout, de partout du monde, et qui sont venus d'autres différentes contrées du globe. Je voudrais vous témoigner au nom de Serigne Bassirou Mbacké tout notre sentiment de gratitude et de reconnaissance pour la qualité de l'accueil indescriptible qui a été dépeint de couleurs de magnanimité, d'amour, d'hospitalité et de sentiments de communion. Tout ceci nous vont droit au cœur. Veuillez témoigner notre contentement, notre gratitude envers ce voisinage qui dure depuis 129 ans, depuis l'arrivée de Cheikh Ahmadou Bamba sur cette terre. Cheikh Ahmadou Bamba, notre guide, notre idole, l'abreuvoir des assoiffés, notre bien-aimé, Cheikh Bamba, le serviteur privilégié du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala khayri khadimihi wa Mention spéciale à Serigne Fallou Bousso Gabon, l'initiateur dévoué de ce projet. Que le bon Dieu le couvre de sa béatitude infinie et continue de perpétuer ses bonnes œuvres à travers ses collaborateurs engagés qui sont tous ici présents, à travers ses fils qui ont tous porté ensemble avec tous les Sénégalais vivants ici le flambeau Tout le temps, on entend parler du message de Cheikh Ahmadou Bamba, qui n'y est rien d'autre que la rénovation de l'islam, la revivification de l'islam sur l'ordre du prophète Mohammed. Mais le socle de ce message, on peut le résumer en la notion du khidma. Nous avons préparé un discours sur tout cela, mais nous aurons le temps de le bien présenter. d'ici la journée. Donc le socle de, du message de Cheikh Ahmad Bamba, c'est le khidma. Le khidma qui est une spécificité dans la vision de Cheikh Ahmad Bamba. Il s'agit du don de soi pour le bien-être de la communauté. C'est une action entreprise par la personne sans contrepartie et dans le seul but d'aider le plus grand nombre. Le khidma, on l'appelle d'ailleurs Khadimur Rasoul, le serviteur. Et toute activité qu'une personne entreprend au profit des créateurs pour gagner la satisfaction de son Seigneur et pas simplement pour un retour financier ou un intérêt immédiat. C'est aussi faire tout ce qui profite au Créateur dans les domaines religieux est temporels. Donc avec le khidma, on allie le temporel au spirituel. C'est une belle qualité que possédait lui-même Cheikh Ahmadou Bamba avant d'appeler les autres à le faire. Il est ainsi honoré du titre du plus illustre serviteur du prophète, que la paix soit sur lui. Comme il le dit lui-même dans Mafatihul Bishr al-Kubra, tu m'as définitivement nommé ton plus noble serviteur tu es celui qui m'annonce d'éternelles bonnes Lorsqu'il a pris le bateau pour venir au Gabon, il a écrit Allamani Rahman fi Safina bi annani Khadimu zil Lorsque j'ai pris le bateau, le très miséricordieux m'a fait savoir que je porte désormais le nom du serviteur le plus privilégié du prophète. Je dois servir toute la umma, je dois servir toutes les créatures. Je vais endurer toutes les souffrances pendant sept ans et huit mois au Gabon pour que les créatures, les humains, soient libres dans l'amour, la liberté et la communion. Donc, Cheikh Ahmad Bamba avait une autre vision qui est la khidma. Au-delà de la prière, Au-delà des autres pratiques cultuelles, il faut que l'homme ait conscience que son métier est un acte d'adoration d'abord, un moyen pour lui d'accéder à son Seigneur. Le tailleur, le commerçant, le restaurateur, le médecin, l'homme d'affaires, etc., vont en faire de même et ainsi suite. Chacun parmi eux doit considérer que son activité est un moyen pour lui de satisfaire son Seigneur. Donc l'action de l'individu s'inscrit dans un cadre d'interaction avec ses concitoyens dont la finalité est l'adoration du Seigneur. Serigne Bass vous transmet également tout son contentement toute sa gratitude pour le, ce nouveau lieu qui a été octroyé au nom de Cheikh Ahmadou Bamba et qui fait la fierté de toute la communauté et qui indique dès maintenant le triomphe de la vérité. La récompense d'un homme qui a été déprivé de toute liberté. La récompense d'un nom qui a œuvré, non pas pour lui-même, mais pour toutes les communautés qui le considèrent comme un bien, bien public. Toujours je dis que Cheikh Ahmed Bamba n'est l'apanage d'aucun Africain, n'est l'apanage d'aucun Sénégalais. C'est l'apanage de toute la créature si il le pense ainsi. tout à l'heure Serigne Bassirou disait min asraril ghaiba Serigne Touba lui-même l'a écrit les secrets de son séjour au Gabon on peut en citer A'tanillahu ilman bila ta'allum Dieu m'a donné un savoir incommensurable qui ne provient pas d'un simple apprentissage. Ghalaballahu li a'da'i qabla dhuhuri Dieu a vaincu tous mes ennemis avant mon apparition. Adkhalallahu mahabbati fi khalbi kulli sa'idin. Tout homme heureux qui aura un bonheur ici-bas et l'au-delà portera l'amour envers moi. Serigne parmi les secrets du séjour mawahib ladunya la tatanaha Dieu m'a comblé de bienfaits interminables des bienfaits sans méfait pour toute la créature donc je vous invite tous musulmans chrétiens même non croyants à venir apprendre Cheikh Ahmadou Bamba à venir bénéficier de cette source intarissable de bienfaits sans méfaits. Encore, monsieur l'évêque, encore, monsieur le maire, encore, monsieur les habitants, mesdames, messieurs de la commune de Mayomba, mille merci au nom du Khalif général des Mourides. الخلا وسالكنا للخل لي بار ما ينبا muy Tawfekh jugee